dina ngeen jëf mbokk Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen jaajëfal ci kontaante bi ngeen kontaan ci ñun waaye lu ko raw lañ kontaan ci yéen tey nag mbokk yi ñoo ngi fii le 27 juillet nationale Sané production woote fi ci dox ci diggante ki nga xamante ne nii mooy Tigre Junior ak ki nga xamante ni mooy Boy Jaxaay mbokk yi dina wax nag ay lamb yu neex moo fi am tey Adama fii dina neex dina yëngu démb euh, fii neexoon na waaye tey defe naa ne du ne mooy dàq démb de waaye dina neex lool lool lool dafa am lu am solo nag loo xamante ne am na fi muy suñu confrère suñu xarit ki nga xamante ne mooy Modou Anta sans frontière moom mi nga xamante ne tey moom leen tuddee drapeau bu mag bi bi dox ci diggante euh, Saara ak ki nga xamante ne mooy Arsenal mbokk yi mu nekk làmb joo xamante ne làmb ju neex lay nekk waaye lépp loo xamante ne am na fi ci ambiance lépp loo xamante ne am na fi ci bàq lépp loo am na am na fi ci saan di leen ko dégtal mbokk yi ci wasaare làmb di leen jox dig daje ci kanam Lac Rose Thio Thio def na changement de pied Lac Rose Lac Rose Thio Thio wu rëpp na Thio kal na ko takk na rasu na Lac rasu na Thio daa mel ni ko gënal Lac Rose Thio rëpp na o oh, ba daanuwul am na lu am na lu xew Thio ko rof caxabal bi ba koo forcé waaw waaw danga koo forcé du noonu lamb naxante la Lac daan na Thio mbër nuyu naa la maa lay dafa mel da nga sonn de wallaahi sonn moom la kon suñu ko ci yaay nii laaj leen du dara daa am lu jóge sama xol rek moo jóge sa xol ki daan da nga woo kontaan. daan naa waaye ba may préparé sama waajaay combat sama maam sama lépp bu ma daan am combat moom moo siy gën a sonn mu won ma ginnaaw xëy na moo ngi si dëgg man maa ngi si di ko ñaanal yàlla fa mu ne yàlla ko gënal fa mu jóge di ñaanal sama yaay temps yaasin yàlla ko yàlla yërëm te si kawam mbooloo mu jullit ña yowoo barsaak. mais noo bëyee moom dañoo gis nga xeex ak moom lu waral xeex bu bàyyi bi. ndax luy problème bi damaa xeeb joxuma cër. moom dala waaw joxuma cër. man loolu laa koy gisee te xamul. looloo nga xeex ak moom. moo tax ma woon ko ne man du ma moroomam si làmb. ñoom nañu bàyyi lu ñuy naan tey entraîné nañuy bàyyi protéine yu ñuy naan bu ma naanoon protéine maa leen. mooy sa ñaata combat. bi mooy sama 3 combat 3 victoire. mbokk yi gis ngeen délégation baa ngi noonu Modou Anta xam ngeen ne fii ñun fi la ñu woon bokk ñun ci lii la ñu woon bokk woo ñu woon taxaw fi sax di liggéey. ah kilifa gi nuyu naa la. maa lay fay. ci noo nekk. bëgg naa leen baax. mais fii taxaw nii ñun fi la ñu woon nekk. kii gal na sama cher. siyaar naa leen bu baax. maa leen di bëgg di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp. képp koo xamante bi ñu ngi def presse en ligne sant naa leen. Ah, gërëm naa leen. cant bi nag maa ngi koy teg ci loxol ki nga xamante ne mooy buur géwél suñu PDC wax dëgg yàlla mën naa ne sama papa la mais guddil na ma bëccëgal na ma Abdou Tall bu xarañ Amdi Moustapha organe ñi dëkk parcelle ñëpp maa ngi teg seen loxo bu baax a baax grand Modou Baye Fall borom xel comme baas alliance Biram maa ngi teg loxoom ci nuyooyu ci nan laa ko mën a waxee nuyoo mbër yëpp maa ngi teg loxom Fadal moom du ma ko nuyu ñoom Fatma yéen ñii du ma leen nuyu parce que ci ngeen bok samay mbokk sama am di jàmm Baye Fall ak Yaay Fall yi wallaahi sant naa leen bu ma waxee daanaka mën naa ne damay jooy parce que ñi topp sama ginnaaw xaaj duñ samay mbokk walaay lancim xaaj bi xamante monde de la sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sama tarkindaay nag père ak amet fii ba jàmm gan maa ngi leen di sant bu baax a baax ñi ci ginnaaw ñëpp mënumaa jaar kenn ku nekk ci turam mais walaay lancim kenn ku nekk bëgg naa jaar ci turam ne leen sant naa leen gërëm naa leen maa ngi leen di xaar ci kaw Gueye bu naama rasta Boy bu naama rasta bu naama songale daan wala lu def bu naama rasta abit atte na daan na ko wala daanagu ko ah bi jox na victoire ki nga xamante ni mooy bu naama rasta daan na Boy Gueye njaaxaaw kese gars sax ñoo ngi buntu bi waaw li nga wax baak Serigne Touba mais mobilisation bi lan la waaw doon doomu Thiès rek yaakaar si ñun rek ñoo gën a ndaw si mbër yi mais sant yàlla bi sa première fois nga ñëw Dakar Bërës waaw bi mooy sama première fois may ñëw Dakar Bërës waaw naka nga gisee arène nationale bi waaw parce que man dama ko jàppee comme stade bi may bëree Thiès mais lan la laaj waaw bés bi bés bi maanaam dafa taaru laaj na li nga xam ne tey mooy dal ak lépp parce que tey boo xoolee lu topp suñu ginnaaw newoon naa ko bisu làmb ja maa koy am supporter te fii la dëkk man Dakar dama fee am ay supporter di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla suturaal may ñu ndam incha allah jaajëf tigre la waa lii waa Cambérène la rek. waaw dama liggéey. loolu moo ma teg lu metti maam ba may ma xaalis bu waaw waa parcelle nekk si man ak waa Cambérène. mooy lu bëree daa Modou Anta tey bésu lu laaj. xoolal lii. jëlal lii per per ba 400000 la ma may 400000 ma jënd si billet 400000 grand combat laa war a bëree kii dama koy corriger dem ñibbi. mais est-ce que tey làmb ji na yomb. waaw làmb ji sant yàlla rek yomb ak ñaaku yomb man damay mbapat ñëpp xam nañ ma ay ñoom jil ñëpp xam nañ ma fekk nañ ma façon àll bu ne damay bëri mbapat parce que démb ñaar laa demi-finale moo ko jàppee mu jeex. jaajëf. mbokk yi ñi seen combat mënut a booy xool blessé na avant lamb ja waaye allo yi nii ñaay doomu ndaanaan lañu vite fait alu vite fait moo takk yemul xonk li takk morso bu xonk bi ci dënn bi alu mbokk yi bi àtt na combat bi alu vite fait Alou ñoo ngi ñoo ngi ñoo ñoom ñaar vite fait daw na jël tànk ba vite fait jël na tànk Alou waaye jël ba baaxoon na ñoo ngay xeex doon ko mu kaaw jeexagul vite fait kaa nga bëree vite fait kaa nga bëree jël làmb ji jeexagul kooku waaye lii lan la jël am na wala amul da koo dóor kaa ngeen bëree waaw jël amagul. vite fait da ngaa teel a bàyyi vite fait nga bëre coach génnal vite fait alu abi bi sifla waat na da ko mu def rotation mu yaakaar nag jël am na vite fait alu alu à droite vite fait à gauche Vite fait, allô xale yaa ngi noonu aloo ngi dox ci kaw vite fait eh vite fait na muy xeexee baax na takk nañ la vite fait takk nañ la dañ lay daan waaw waaw allo daan na vite fait ñu dem yow daan na vite fait dafa daan allo daan na vite fait. xool ko la mu andi ci ay mystique lii de mënu ma laa wax lu mu doon Adama waaye boo ko xamee wax ma ko man daal gis naa fi ndaa bu mag ak ndaa bu ndaw buñ takk moosu bu xonk waaye gis naa fi benn béjjën xaw ma béjjënu nag laa béjjënu kooba la su ma gisoon sama papa Xaadim Samb dina ma leeralal dina ma wax nagu àll la wala lu mu doon waaye lii moom mënu ma laa wax lu mu doon ndax ñoo ko gisandoo mu lal perkaal bu weex boo jaxaaw ngi noonu xeex nañu léegi ñoom ñaar weccante nañu ay coup Arsenal a ngi dox ci kaw Saara waaye Tigre Junior mooy foofu plateau bi yàgg na daw na jël saara Sara bloqué na ko Arsenal Sara Sara dafa mel ku bëgg a moom Sara daa mel ku bëgg a moom ñoo ngi xeex waaw drapeau Modou Anta mënut yomb te ñu tuddee drapeau ba la Sara daw na jël ko Sara daw na jël Arsenal waaw Arsenal daan na Sahara Arsenal daan na Sahara Arsenal daan na Sahara yi Raskas Jackson Raskas moo ñu won ginnaaw Jackson 2 lañu jàkkaar lool xale yaa ngi lewaatoo Raskas Jackson 2 Raskas Jackson Raskas Jackson 2 Raskas moo ñu won ginnaaw ngemboo ngembul vert li Jackson 2 lañu jàkkaar lool Raas Kaas Jackson Raas Kaas Jackson Jackson dag na bi léegi waaye Raas Kaas da ngeen ne ko di ko xool Raas Kaas Jackson bravo mais tey boobu dafa ala daw waa Ousseyn yéen la rek yéen def lépp moo tax xale yi tey seen combat bi mënut a woon yomb. barke sëñ Ba Mbacke xeex nañ bëree nañ Ousseyn mais combat bu doy waar a ngi nii. diggante Raskas Jackson 2. Raskas mi ma woon ginnaaw ca Ibamar la mujj diggante ma maam Góor Diouf am ci defet donte ndaanan la Jackson ma nga mujj ca Léopold Sédar Senghor digganteem ak fii de Sallo jëlante nañ Jackson ak Raskas ña nga ca combat ca suuf dañuy mbapat mbëru mbapat lañ Jackson bëtt na ko. Caxabal da koy yëkkati de attention Caxabal. Eh! Oh. ay waay Jackson jël am na. Jackson daan na ko de Jackson daanu na. ah Jackson daanu na. waaw kubar xale buun ba daan na ko. Ah, Jackson Jackson. mbër la ñu bàyyi ko xel mi ngi ci yoon bi ginnaawam laalagu suuf de Ousseyn. waaye li ngay wax tey la signé cinquième victoire am. daan na balaag. Adama kaa dem daan na Yankaw Senior ma nga noonu. Adama a azim. non. Jack lan nga moom tey. waaw ku sama combat bi ak combat yi may bokk tey damaa ñëw ak koose ak suñu école bi daa métti quoi gars yi dañuy daanu rek. dëgg la ah, ñu dégg lu ñu liggéey nag. mais cinquième combat cinquième victoire lan nga ci wax. na ma jox samay samay morom ñu ma jox cinquième combat na ma jox morom laa bëgg a. gannaaw ñan ñooy say morom. kii kii ku mu wax ku laa bëreel am ku mu ku laa bëreel wala waxoon nga ko ne ko dugg nga yëmbal am ko bu ñu njëkkoon si man dootu fa duggati dootu fa duggati tey dafa waroon xeex mais xeexuma rek am mooma yëpp ne ma combat bi nekkul combat boo war a ñàkk ma ñëw teg ko si yoon bëri ko xam ne ko bëri laa ko daanee ak liggéey bu wóor mu la yow xam nga ne ah sànq am loo waxoon waaw man la mbër bi fële bi na waaw nga ne ma non dama koy daan fan nga ko tegoon mystiquement la woon wala nekkul mystiquement gëm sam bopp man damaa mën a bëre damaa am doole te xale bu ndaw laa te caaxaanu fooyoo ma sama bopp ñi xam nañu ma bu baax. bi mooy sama sixième combat. cinq victoire benn nil. waaw ah, fii de Zallo. na ma jox sama morom grand combat laa soor. man ma wax dëgg kii mooy wax kii si ku boo ñëwee bu naa la wax ñan. arbitre bi sifflé na Joe Technique Baye Ndiaga Baye Ndiaga am na lu ko teg ko ci digg bopp ba kenn du kenn Joe Technique numéro 2 Baye Ndiaga ñëw na génn na géew bi waaye Joe Technique numéro 2 wa ngi noonu Adama jëlee ma Joe Technique Adama jëlee ma Joe Technique maa bëgg mbër mu mel nii. mbokk yi zootechnique ba Ndiaga ki di zootechnique musta dégg mu ñëw moo ngi teg la quatre victoire wala cinq waaye kii di Baye Ndiaga mbokk yi ci ay tolof tolof la nekk teg la na cinq défaites wala quatre défaites bokk ñoom ñaata ñu waa daje Baye Ndiaga zootechnique Baye Ndiaga Baye Ndiaga Zo Technique numéro 2 zone technique Baye Ndiaga arbitre baa ngi wax ñoom naan leen bëre leen Baye Ndiaga zone technique seen lewaatoo bi yàgg na arbitre bi àtte na ñoom ñaar ku ci nekk am nga trois avertissement te laaleegunu kupan jogagul jàppanteegunu Baye Ndiaga Zo Technique seen combat baa ngi bëgg a yàgg Baye Ndiaga Zo technique seen combat bi yàgg na waaye léegi dafa mel ni jege yaantoon nañu ñoom ñaar Baye Ndiaga Zo technique Zo ngi def ay larn ay jeu de chambre wala ay bougement ci olof soote ñi dafa mel ni décidé na fi mu toll nii waaye mbokk yi Baye Ndiaga yàqamtiwul dara Baye Ndiaga yàqamtiwul dara Baye Ndiaga Zo Technique Baye Ndiaga Zo Technique ñoo ngay demee wet ñoom ñaar Baye Ndiaga Joe Technique Baye Ndiaga moo ñu woon ginnaaw Joe Technique lañu jaakaar lool Baye Ndiaga Zo technique Zo yàqamti wu ci dara waaye mbokk yi combat bi dafa yàgg léegi dix minutes yi mat te dóoranteeguñu jàppanteeguñu ba xale day am calcul waaye daa war gaaw. arbitre bi àtte na am na trois avertissement Baye Ndiaga am na quatre avertissement mi-temps Baye Ndiaga Zo Technique ñoo ngi jàppante ñoom ñaar ñoo ngi ne tekk ku nekk ngi ne tekk di déglu sa morom Baye Ndiaga Zo Technique Baye Ndiaga dóor Zo Technique daaw na bëgg da koo bëgg a plaqué waaye Baye Ndiaga daa xaw diis Baye Ndiaga daa xaw diis Baye Ndiaga jàppul fenn Baye Ndiaga jàppul fenn Baye Ndiaga ngi di rokos si suuf waaye zone kay manoeuvre di liggéey Baye njaga door na léegi Baye Ndiaga ngay xeex ak moom kor na ko Zo Technique koy dugg Zo Technique del na jël tànk ba Baye Ndiaga lu mu def Baye Ndiaga Zo Technique Baye Ndiaga Zo Technique wee Zo la muy na Zo Technique Baye Ndiaga zoo technique Baye Ndiaga cay zoo technique Baye Ndiaga zoo technique

jàppante seen combat bi yàgg na Baye Ndiaga Zo Technique Zo Technique Zo Technique daan na Baye Ndiaga Zo Technique daan na Baye Ndiaga Zo Technique daan kaay leen ma naa bi sant yàlla julli ci yéen sant suñu ñaari waajur ngi sant sama sëriñ jab sëñ Assane Diouf ak njaboot sëriñ Aliou Diouf gépp di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di nuyu sama yaay di ak wér gu sant sama sant ba sëriñ sang wér tey Sané sepp benn drapeau dippeloo ko muy diggante Zara Arsenal ban cofeel nga am si loolu cofeel bi ma ci am cofeel bu rëy rek parce que Sané yaakaar naa ne bu ko neexoon man naa xool ku ma ëpp xaalis wala ku ëpp baati réew mi wala ku ma ëpp daraja tuddee ko drapeau kon tey bu ma ko tuddee dama koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yàlla na dem bañ koy feete ay quinzième édition ay vingtième édition ci barke Serigne Sarr Siteu di sant monde de la lutte bàyyuma kenn yi daal di ñing maa ngi koy sant di jël nuyoo promoteur bi di ko toog ci loxom ak loxol Assane Ndiaye gàntaluñ ma benn yoon jàppale nan ma ci Abdou Tall bu xarañ am di Moustapha organe Siteu boo limee da ngay jum Modou Baye Fall xel comme base mbëri alliance bi dem ñëw teg ñoom di jee teew Sa Thiès Omar bu Noiro ma di Kambay ñoom Cheikh Sey kii li Colobane Sanse si ta walaay lancé boo limee da ngay juum sama DG Xavier Seck Beuz maa ngi koy nuyu di ko di nuyu Abo France di nuyu ki nga xamante bi nii ndeysaan kenn la ci man muy sama yaay ak sama mag bu góor bi Thier ak soxnaam ak waa Grand Yoff di nuyu monde de la ku ma limul rek damaa juum di nuyu sama goro di ko sant di ko gërëm jàpp na ci di nuyu fi ma dëkk Oustaz Kane soxnaam soxna Nabou Dieng Badiane Ahmed Ndeye Mbow ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen siyaar ñu gis sa waay kër jàppale la taxawu la gan gu ñëw ñu teral ko def ko nii seen bopp ñooñ boo amee ban cofeel nga leen wan bañ saay boo jógee wala boo xewlee ñu taxawu la moo ban cofeel nga wan waay kër ga waaw kër ga mën naa ne ba ma fa dëkkee yàgg na yàgg mais dañ maa jàppee comme seen doom walaay lancé aw ma fa saas internet walaay lancé lu ma neex laa fay def di leen sant Oustaz Kane soxna Nabou Diène Badiane Ahmed Sène Tidiane di leen sant di leen gërëm. kontaan nañ si yow Modou. jaajëf si booy jaxaaw moom la ñu jàkkaar lool Tigre Junior mbokk yi moo ñu wan ginnaaw. Boy Diakhao Tigre Junior Tigre Junior am na la muy jat Boy Diakhao pare na moo ngay lewaatoo ak moom Boy Diakhao Tigre Junior Tigre Junior dem na Boy Diakhao wàcc na ci ay tànkam Boy Diakhao Tigre Junior Tigre Junior cokkaas na léegi waaye dalul Tigre Junior pied gauche la teg Boy Diakhao teg pied droite Tigre Junior ñëwaat na ci digg géew bi Tigre ñoo ngay xeex Baye Ndiaga waxoon na ma ko nee ma dina neex dina yëngu wala boog xeex nañu Boy Diakhao Tigre Boy Diakhao Tigre Badou Kaawu Boy Diakhao Tigre ñoo ngay xeex xeex nañu xeex bu sax léegi Boy Diakhao Tigre Boy Diakhao Tigre Tigre am na loxo ci ngemb Ardo Ardo Boy Diakhao Ardo Boy Diakhao dem na Ardo ñoom ñaar ñëpp dem nañu Ardo xeex nañu léegi ñoom ñaar xeex bu neex xeex nañu léegi eh, Tigre door na ko léegi coup bu dal Tigre door na Boy Jaxaaw ñoo ngay xeex mbaa bu continuer nii kaawoo du ci am mbaa bu continuer nii kaawoo du ci am mbaa bu continuer nii kaawoo du ci am ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex Boy Jaxaaw Tigre daay eh, xale yi xeex nañu léegi xeex bu metti xale yi doorante nañu léegi ardo Ardo Tigre dem na Ardo Tigre dem na Ardo oh xale ya xeex nañu. arbitre bi sifflé na combat baa ngi dox ci diggante Boy Diakhao ak Tigre ñoo ngay lewaatoo di demee wet. yaakaar naa ne xeex boobu mu continuer dàquma ci dóor mu daanu wala dàquma ci dóor mu gaaw jógaat waaye ni ko bëngaay di waxee kat appi jël la ku nu dóor nga daanu yaa koy yëg boo jaxaaw gàtt na léegi ba mu neexoo mu njoolaat Boy Diakhao daal dafa bëgg a imposer wu bii Dakar ñëw na tuus tuus bu neex andi ambiance Diguy Junior ñëw tuus mbokk yi boo xoolee stade bi ñëpp a ngi ne teg ngay dégg ak tëggkat yi. supporters yi mbokk yi temps ba jeex na arbitre bi sifflé waat na Boy Diakhao Tigre Junior bëre nañu léegi ba mi-temps Boy Diakhao Tigre Junior ñoo ngi lewaatoo Boy Diakhao Tigre Junior ñoo ngay demee wet wala boog ñoo ngay wër wër la Boy Diakhao Tigre Boy Jaxaw mépp na léegi waaye demul dañuy napp dañuy nattante ñoom ñaar Boy Jaxaw cokkaas na léegi arbitre bi woowaat na leen ci diggi géew bi Tigui cokaas na léegi Tigui dana tànk Boy Diakhao Boy Diakhao koy doo baadu kaawoo xeex oh, dañoo tolloo doole xale yi dañoo tolloo doole ba ardo du ci am yoon ba ardo du ci am yoon waaw waaw ñoom ñaar ñoo nga ca digg géew ba Boy Diakhao door na ko léegi eh Boy Jaxaaw Boy Jaxaaw def na ko gauche droite mu xeexeek moom baaxul am Diop joxal Njaay am Diop joxal Njaay gi bëgguma ko ba kaawoo ci am am Diop joxal Njaay ñoom ñaar ña ngay dóorante pàdd na ko léegi moom Tigre paas dina ko léegi Boy Jaxaaw est-ce que sonnul est-ce que Boy Jaxaaw sonnul waaw Boy Jaxaaw daa sonn Boy Jaxaaw daa sonn Boy Jaxaaw dafa sonn day noppalu Boy Jaxaaw dafa sonn day noppalu am na la muy waxante ak Abidjan dafa sonn Boy Diakha am na trois avertissement Boy Diakha am na trois saqatal na ko léegi Boy Diakha aw Tigre lewaatoo bi bar na léegi Boy Diakha aw Tigre Boy Diakhao Tigre Tigre fàtt na Angalya ee eh, Tigre fësës na ko léegi Boy Diakhao dóor ko Boy Diakhao Tigre Boy Diakhao Tigre temps ba jeex na ñoo ngay xeex jox nañ victoire ki nga xamante ne nii mooy Tigre am na ndam ci kaw boo Jaxaay mbokk yi gis ngeen loolu mooy journée bi nga xamante ni mooy journée Sané Production te loolu lañ fi àndaloon ci diggante ki nga xamante ne nii mooy euh, dox ci diggante Tigre Junior ak boo Jaxaw Tigre Junior am na ndam ci kaw boo Jaxaw ki nga xamante ne nii mooy Zo Technique numéro dë am na ndam ci kaw ki nga xamante ne mooy baay Ndiaga Raskas euh, nu mu tuddati waay. Euh, Jackson numéro 2 daan na ki nga xamante ni mooy Raskas mbokk yi loolu la leen àndaloon ci ki xamante ni mooy journée Sané Production di leen jox daje ak Wassare Lamb ci yeneen lamb ci yeneen événement ak Adama jaa ngeen